wa ala aalihi wa sahbihi wa sallama wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim ñu fas yéene tàmbali suñu ñetteelu bind ci commentaire bu ñuy jéem ci téere bu màgg bi di Ash-Shamaa'il almuhammadiya mm-hmm. lil imaam alxaafid at-tirmidi mm-hmm. rahmatullahi alayhi ñu war a ci juróom-benneelu xadiis mm-hmm. am na sax ñu ko def juróom-ñaareelu xadiis ndax boo xoolee gannaaw bu mu nettalee juróomeelu hadis hmm. la nga gis ci ay nusax mu ne xaddatana sufyaan bnu wakiin hmm. qaala xaddatana abi an ilmascuudiyi bi hmm. hada lisnaadi naxwahu bi maanaam dana wax ne sufyaan doomi wakiic nee na wax fa ma bàyyi nettali na ma jële ci Mas'ud yi mm-hmm. mu tudd isnaad même isnaad bi ak xadis boo xam ne maanaa mi même maanaa la mm-hmm. gannaaw indiwul xadis ba nag mm-hmm. am na ñoo xam ne konte wuñ ko kom xadis waaye gannaaw wax na ne nettali nañ ko xadis bu niroog bi te yeneeni sëriñ ñoo ko ko nettali am ñu ko konte muy xadisu boppam te nga gis ci yeneen nu sax yi hmm. xaddis bii di juróom-benneel hmm. ci yeneen yi xaddis bii di juróom-ñaareel hmm. <coughs> nee na xaddasanaa nettali nañu ahmadu ahmadu bnu abdata dabbi ahmad doomi abda dabbiyu kay ko jóg dabb albasriyu kay ko jug basra wa aliyu bnu xujurin ak aliyu doomi xujur wa abu jaafarin ak baayi jaafar turam mooy muhammadu bnu lxusein mu ne wa huwa bnu abi xalimata mooy ibnu abi xalima maanaam Muhammad ibn Xuseyn mooy Abu Jaafar mooy ibn Abi Xalima wal maanaa te maanaam xadiis biñ ma nettali ñoom ñëpp waaxidun benn la qaalu ñoom sëriñ si yëpp nañ ma nettali nañ ma ne xaddatanaa nettalil nañu Iisa bnu Yunusa an umara bni abdillahi jëlee ci umar doomi abdillah hmm. mawla xufrata hmm. di mbaay yàllay sang bu jigéen bu ñuy wax xufrata hmm. bu dee wolof mu ne soxna su ñuy wax xufrata xufratu mii nag sëru sayidna bilal la radiallahu taala anhuma waaw moo lu Umar ibn Abdullahi wax hmm. qaala mu ne xaddasani nettali na ma hmm. Ibrahim ibnu Muhammadin hmm. kuy Ibrahim ibnu Muhammadin mu ne min waladi Ali Ibrahim doomi Muhammad mi nga xam ne min waladi Ali ibni Abi Talib mi ngi bokk ci doomi Ali ibni Abi Talib qaala mu ne kaana nekkoon na aliyu seydna ali ibn abi talib radiallahu tabaraka wa taala anhu ida wasafa rasulallahi su mellalee su mellalaan yonantu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama qaala mu ne lam yakun nekkuloon wa rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama hmm. bi tawili di njool hmm. almumarxiti nga kasra xayin gi hmm. am na ñu ko fatxa lam yëkku nekkuloon rasulullahi sayyidina nabi sallallahu alayhi wa sallama bi tawili di njool al mumarriti gay aji ëpp maanaam yonentu nekkuloon di njool njool gu ëpp sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama lam yakun nekkuloon annabi sallallahu alayhi wa sallam bi tawil ar hmm. gay aji dem ci gudd hmm. gay aji ëpp ci njoolaay hmm. wala bil qasiri nekkuloon di ndaama al mutaraddidi koo xam ne lennam dafa duggalanteeg lennam koo xam ne dafa gàtt ba cër yi mel ni fañ duggalante yonentu melutoon noonu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama mm-hmm. dégg nga de mm-hmm. Mm-hmm. mu bëgg laa wax nu meloon nag mu ne wa kaana nekkoon na rabaatan min al qawmi rabaatan di ku aji diggu doomu min al qawmi ci nit ñi maanaam guddutoon ba mu xëpp waaye ndaama wutoon doonte gudd la gënoon a jege sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. loo teg mm-hmm. lam yakun nekkul woon moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam bil jaadi di amee karaw goo xam ne fay aji kotomu fay aji lunku kay aji leemu alxotati kay aji tat mhm. ji lung kay mhm. aji tat ji leemu kay mhm. aji tet ji kotomu maanaam karawam kotomu wutoon ba mu hëpp sallallahu alayhi wala bi sabti nekkul woon di aji tàlli it ba mu ne kaana nekkoon na daal moom yonentu sallallahu alayhi wa jaadan di aji amee karaw joo xam ne dafa kotomu hmm. rajilan di aji tàlli hmm. loolu mooy dafa nekkoon ci diggante kotomu ak hmm. ak tàlli wala rajilan di aji diggu doomu kaana nekkoon na ma yontu sallallahu alayhi wa jaadan di amee karaw guy aji kotomu kotomu goo xam ne rajilan aji diggu doomu la maanaam kër la wutoon torop mm-hmm. waaye ñàkkutoon a kër la it mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. walam moom nekkul woon moom yonantu sallallahu wa alihi wa sahbihi wa sallama bil mutahhami di aji eh, am yaram jooxam xam ne ju bëri yàpp la wala hmm? hmm. neexee nga ne wala bil mutahami nekkuloon di pata hmm. sallallahu alayhi wa sallam maanaam koo xam ne dafa bëri yaram bëri yàpp yonentu melutoon noonu sallallahu alayhi wa sallam bil mukalsami nekkuloon it ku ñu rooxal kanamam ku ñu wëndeel kanamam ba mu ëpp maanaam kanamam ron wu toon yonent bi sallallahu alayhi mm-hmm. dafa amoon ak ron bu tuuti mm-hmm. ànd ak gudd kanam googu moo rafet mm-hmm. yonent nu nit di rafet lu nit di mel ba rafet rek na ca gën a rafet la mel waaw karaw gu ron ba mu ëpp rafetut karaw gu tàlli ba mu ëpp it rafetut moo tax yonent tuuti ron ngay gis ci karawam tuuti wëndeelu ak tàlleeku moo tax moo gën a rafet ci kanam yi kanam gën a rafet ci kanam yi mm-hmm. sallallahu alayhi mm-hmm. hmm? mm-hmm. wa sallam walam yakun bil mutahami wala bil mukalsami walam yakun nekkuloon moom yonentu bil di aji pata ci yaram wala bil mukalsami du caaga nag muy kuñ wëndeel kanamam waaye bu bu la waxee kanama wëndeelu toon nga ne kon kanam gi dafa taalir mu ne ah déedéet hmm. kana nekkoon na fi wajihi ci kanamam hmm. tatwiirun ak wëndeelu hmm. su ma ne wëndeelu wutoon mooy wëndeelu wut ba mu hëpp ron wutoon ba mu hëpp waaye terewut ak wëndeelu goo xam ne fa koy rafetal ma nga woon ca ma nga woon ca kanamam sallallahu wa sallam melow yaramam nag mu ne ab yadu nit ku weex la woon waaye mushrabun weexaay bu njaxase xonqaay mm-hmm. weexutoon tàll mm-hmm. xonqutoon coy mm-hmm. weexaay bu jaxasoon ak xonqaay loolu dafa am ñoo xam ne mm. weexaay moo rafet ci ñoom mm. am ñoo xam ne xonqaay moo rafet ci ñoom mm. muy nit teeru ak nit yi kaw yàlla nag def yonantu noo xam ne hmm. su ko nitu teeru gisee hmm. mooy gën a rafet ci ñoom hmm. kaw gisee mooy gën ci ñoom nga xam ne nitu kaw duñ koy gis lu ko nitu teeru dafañ koo rafetlu ba safaan képp ku ko gis rek fa ngay seet taar ngay fekk ne moo ci ëppale ndax yow am na loola ci am na la ngay seet ci taar ba pare hmm. ba dolli ca hmm. moo tax yàlla bindee ko noonu hmm. ku ko gis rek bëgg ko sallallahu alayhi wa sallam waaw képp ku am lawq soo gisee yonentu rek xam ne moo gën a rafet alayhi salaatu wassalaam loo teg ataajul ayne yi wala du loolu ad'ajul aynayni moom yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ku yaatu ji bët la woon sallallahu alayhi wa sallam ad'aju baal ma ad'ajul aynayni aji tat ji ñuulaayu bët la woon maanaam lii ñuul ci bët ñeel yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñuuloon kukk alayhi salaatu wa salaam ad ajul aynayni hmm. aji taj ji ñuulaayu bët la woon hmm. alayhi salaatu wassalaam hmm. ahdabul ashfaari ku euh, naka lañ koy waxeeti ku gudd la ay lii mooy lanati lii xef xef bokkul ak azfar bu dee voi mooy we chine bi mooy xef yonentu sallallahu alayhi wa hmm. ku gudd ay xef la woon hmm. gis nga jigéen ñi hmm. pour rafet dañuy dañuy monter ay xef moom na gannaaw xefe mi yàllaa ko monter soxla wutoon monter ay xef maanaam li nit ñi di wuta def pour rafet moom dafa ko juddu xaale sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa ahdabul ashfaari mm-hmm. aji gudd ay xef la woon mm-hmm. sallallahu alayhi mm-hmm. wa alihi wa sahbihi wa mu ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam jalilul mushaasi ku màgg boppi mbagg la mbagga bi boo ko gisee bu toogee mbagga mi rek ngay séen ak ñum toogal luñ gudd gudd luñ njool njool mm-hmm. loolu maqaawama la soo ko gisee mu taxaw moom kenn nit mm. da gis ne boppi mbag yi dañoo musculé mm-hmm. loolu mm-hmm. signe la ci ak mëtub bind ak rafetaayam ak euh, kàttanam sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam jalilul aji màgg ji boppi eh, mbagg la mm. sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama mm. wal kat ngay wax ak joggare mm. ay joggare mit dañoo màgg sallallahu alayhi wa sallam joggare mooy fii hmm? jalilul mushaasi aji eh, eh, màgg la ci mbagg mm-hmm. dégg nga mm-hmm. wal ak joggare mooy dajewaayu ñaari mbagg yi mm-hmm. mooy joggare mm-hmm. sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mm-hmm. yonentu bi ajradu aji raflewu la ci karaw mu ne booy xool karawu yonentu bi sallallahu alayhi wa gis ne yaramu yonent bi dangay gis ne dafa raflewu karaw yaram woo xam ne dafa sëq ak karaw nga xam ne foo xool rek seen karaw mm. déedéet nga bëgg a dégg ne yaramam bi xamul benn karaw mu ne ah du masrubatin la mm. boroomu karaw dënn ku wàcc jëm ci biir bi la mm. maanaam karaw gu sew googu nga xam ne dafay dale ci dënn ci digg dënn bi wàcc jëm ci jumbax bi waaw nekk karaw gu su gu sew gudd mu ne loolu daal amoon na ko waaye yaramam boo koy xool nee dangay gis ne ku raflewu la mm-hmm. ci karaw moom yonantu sallallahu alayhi wa mm-hmm. alihi wa wa sallam mm-hmm. ajradu mooy koo xam ne yaramam amut karaw ashaaru mooy koo xam ne yaramam dafa bëri karaw buñ ne nit ashaaru la mooy foo xool ci yaram rek da gis ne dafa bëri karaw ah? waaye ajradu mooy koo xam ne yaramam boo ko xoolee da ngay gis dafa leer nañ amut kawar waaye nag du masrubatin am na nag karaw goo xam ne nii mi ngi wàcc mm-hmm. jógee ci dënd bi mm-hmm. jëm ci jumbax bi mm-hmm. di karaw du di nekk daal benn rëdd bu sew ñeel ko sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama chathnul kaffayni aji tal ji baaraami loxo la wal qadamayni ak i ndëgom mm-hmm. maanaam chatnul kaffayni aji tar ji aji la wal wal qadamayni ak i ndëgom yonentu sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. boo gisee mm-hmm. ak baaraami loxom boo gisee tànkam ak baar maanaam ndëgom ak baaraami tànkam dañoo fees del gudd it mm-hmm. mat sallallahu wa sallam xasnul mm-hmm. hmm? shafnul kaffayni mm-hmm. aji fees te tat ji tenq la wal qadamayni ak i ndogu sallallahu alihi wa sahbihi wa sallam fees googu ñu fees nag taxut ñu ñëgës taxut ñu dëng dëgër ba boo ko laalee mu gaañ la wala laalee ñu gaañ la ndax jiitu woon na ci xadiisu Anas hmm. ne moom yonentu sallallahu alayhi wa hmm. eh, nii la meloon hmm. waxoon nañu ne Anas nee na mosta laal soy su gën a nooy tenk yonentu bi sallallahu alayhi wa waaye nooyaay ba dàqwante wu dëkk dégg nga fees ga ak tal ga am na ñoo xam ne seen loxo boo leen laalee xam naa ñàkk toppatoo lay doon ba may suul mu gaañ la mm-hmm. ndax ya cay di jamaate mm-hmm. yonentu melutoon noonu gënoon mm-hmm. a set ci li yàlla bind gën a ci li yàlla bind mu ne ida macha su doxee moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam taqallaa mu buddeeku ka annama yanxaqu mel ni koo xam ne dafay sippeeku fii sababin ci bàppeeku xam nga fële waxoon nañ min sababin mm-hmm. ci mbartal mm-hmm. kooku barab ba mu jógee lay wone mm-hmm. waaye boo ne fii sababin mooy ci bàppeeku ci mbartal maanaam ku mel ni kuy wàcc kuy sippeeku ci mbartal ndax fii nga wax fële nga ne min boo ne mu nga tukkee ca barab ba mooy mbartal boo fii na muy wàccee nga wax ci mbartal bi seetlu nga ka annama yan xattu dafay mel ni kuy sippeeku fii sababin dégg nga ci anamak ak bàppeeku mm-hmm. waaw mm-hmm. wa ida iltafata mm. yonentu sallallahu alayhi wa su gestu haan mm. iltafata dafay gestu maan jëmmu yëpp mm-hmm. waaw ida su gestu haan mm. iltafata dafay gestu maan complètement maanaam yonentu sallallahu alayhi wa sallam du koo xam dafa naan di gestu Euh, dégg nga benn kanam gi bàyyi jëmm ji hmm. waaw soo ko wooyee walla mu lay gestu hmm. war maam ak fitam hmm. dafa yegg ci jëmm ji yëpp lay gestu dégg nga ku ragal dafay gë xool ndànk bu gisee lu mu mu daw waaye ku ragalut du def loolu koo xam ne yi tamit war maam matut mën ngaa wax ak moom mu gestu la lu la après dem waaye yonentu nag dafay tourner complètement jox la kanamam gépp mm-hmm. noonu la meloon ci ëdëb ak ci mm-hmm. xormal kiy wax ak moom mm-hmm. sallallahu alayhi wa mu ne wa ida iltafata su gestuwaan iltafata dafay gestu maan complètement waaw jëmm jëpp bayna katafayhi aji nekk la ci diggante ñaari mbaggam ñaari joggareem nekk na fa xaatamu nubuwati jaarub nubuwatu xaatamu nubuwati mm. tampoog yonantu gi mm. liy wane ne moo tëj mm. yonantu gi xaatamu baax na wala xaatimu mm-hmm. mooy li nga xam ne mooy màndargaal ne kii mooy yonantu bu mujj ci yonantu yi mm-hmm. boo xoolee ci diggante ñaari mbaggam yi danga ko koy gis waaye nag mbaggam càmmoñ mi la gën a jege mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. wutee nañ ci ni mel mm-hmm. am na ñu ne mu ngi mel ni dégg nga nenu pitax noonu la toll am ñu ne déedéet boo bankee sa euh, loxo mel ni kurfañ melowoo la mel dégg wax nañ ci wax yu bari danañ ca yegg fi muy leeralee loolu waaye mel ni kurufañ moom xëy na daf koy nduru waaye mm-hmm. tolluwul noonu la mm-hmm. dégg nga ay karawan ko wër mm-hmm. waaw ne waxuwa te moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam xaatamun nabiyina wala xaatimun nabiyina moo mottali yonent yi maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasula allahi wa xaatama nnabiyin hmm? mu ne kon bay naka tafe yaa ji nekk la ciy joggareem hmm. xaatamu nubuwati waaw hmm. ah, tampon boobu di wane ne moo tëj yonantu gi hmm. sallallahu alayhi wa dogitu yàpp bu fa ne nam mel nag wutee nañ ci nekk ci diggante ñaari mbagg yi mbaggam day njaab càmmooñ mi la gën a jege ca wàllu gannaaw ga nag new ci kanam wa huwa ta moom xaatamu nabiyina moo moo tëj yonantu yi moo mottali yonent yi mm-hmm. xaatimu nabiyina baax na mm-hmm. ajwadu naasi mm-hmm. yonentu sallallahu alayhi wa moo gën a tabe ci nit ñi sadran ci dë ci ci dënn xam nga tabe mm. dafa am tabe gu ñuy toggoo am tabe goo xam ne tabe gu naturel la waaw buñ ne yonentu ajwadu naasi sadran mooy ak tabeem dafa naturel mm. soxlawul toggoo pour tabe mm-hmm. ah, soxlawul toggoo mm. ko judduwaale noonu la mel naturellement mm. fa bima rahmatin min allah lint lahu mm-hmm. tabe ñaar la tabe ci poche mm-hmm. ak tabe ci jikko tabe ci jikko nag moo gën a jafe ki tabe ci jikko mooy jox daraja keneen tabe ci jikko mooy warmaal keneen tabe ci jikko mooy am teggin ci kanam mm. ku tabe ci jikko moo yéene ñëpp baax mm. ki tabe ci poche nag mën naa am jikkoom baax na mm. mën naa am jikkoom baaxul mën naa am dégg nga euh, jox na kam war a jox mën naa am keneen la jox waaye yonentu sallallahu alayhi bu dee ci jikko moo ci gën a tabe bu dee ci poche moo ci gën a tabe te euh, tabeem gi mu tabe ci poche tabe gi mu tabe ci jikko moo ko jur mm-hmm. yaatu dënnam sallallahu wa sallam mm-hmm. dégg tabeem sallallahu wa sallam mm-hmm. joxeem sallallahu wa sallam duut loo xam ne def koy toggoo naturel maanaam koo gis mu yaatu dënn rek yonent a gën a yaatu dënn koo gis muy joxe te la muy joxe ma koy joxe fa mu ko war a joxe yonentoo ko ci man wa sallam waaw Ibn Abbas nee na yonentu sallallahu alayhi hmm. gën a weer hmm. loo xam ne dañ ko yebal lu mu romb daane ko hmm. moo gën a tabe ci nit ñi loolu la njëkk wax mu ne nag tabeem daan na rawati ci weeru koor jamono ji jibril daa ñëw bi nafar ak moom alquran te jibril daf daan ñëw di nafar ak moom alquran weeru koor bu ne guddi gu ci weeru koor mu mm-hmm. ne yonentu sallallahu alayhi wa sallama mm-hmm. jamono ji nga xam ne loolu daan na am mm-hmm. moo gën a tabe ngelaw loo xam ne dañ koy yebal wala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ajwadu min arrihil mursal sa am na ku ñëw ne ko yonentu may ma yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne ko tund wi loo fi gis hmm. ci gëlëm ak nag ak xar ak bay yaa ko moom hmm. mu jiwaay mu ne ko yaa ko moom hmm. kooku di jël yëpp yóbbu ba mu yeggee dëkkam lan la njëkk a wax aslimu fa inna muhammadan yuti ataa man laa yaxaafu lbaq jox dem leen ngeen dugg ci lislaam dugg leen ci lislaam gaaw ndax ki ma gis ni muy mayee du maye ku ragal ñàkk mm-hmm. maanaam du nit du normal ëpp mm-hmm. na di nit sallallahu mm-hmm. alayhi wa sallam bilaal moo daan denc li yonent di dundee mën ngaa wax ne moo doon trésorier sax yonentu daf daan joxe ba bilaal dafay jël dara lakk ci pokkutaan bi pour yonentu bañ koo gis ndax bu ko yonentu gisee dana ko joxe te bu bëggee lekk moom yonentu mën na am du am lu lekk bu ko defee ne ko an anfiq bilaalan mhm. wala taxsha min dil arshi iqlaalan mhm. joxeel yow bilaal mhm. bul ragal mukk ne dana ñàkk dana ñëw ñëwal eh, jógee ci yàlla hmm? ndax kuy joxe yàlla moo lay wutal wa maa anfaqtum tax kenn du ko dab ci tabe kenn du ko dab ci yaatu dënn ajwadu naasi moo gën a tabe ci nit ñi mm-hmm. sadran ci dënn mm-hmm. wa asdaqu naasi mm-hmm. moo gën a dëggu ci nit ñi lahjatan ci làmmiñ làmmiñu yonentu sallallahu alayhi wa sallam eh, dégg nga moo gën a moo gën a dëdd wala ne asdaqu naasi moo gën a dëggu ci nit ñi lahjatan ci waxtaan hmm? wax wax yonentu waxam mooy wax ju gën a dëggu ci waxe mm-hmm. waaw dara du ci génn lu dëgg mm-hmm. xataa lu ñu koy yónni mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam melaw wiñ ko xamee woon ci makka ba muy ndaw ba bi muy màgg mooy as-saadiqul amin ku dëggu ku wóor ki sallallahu alayhi wa moo tax Abu Sufyaan ba ko buur ba di laaj mbiru yonent bi te booba tuubagut ne ko ndax mos ngeen koo xamee wax lu dul dëgg hmm. mu ne déedéet hmm. buur ba ne ko ah, koo xam ne de jomb nga fenal nit ñi hmm. da nga jomb fenal yàlla tabaraka wa taala yàlla du yónni mukk kuy wax lu dul dëgg wa xaalun ilkadibu walmanhiyu ka adami tabliigi yaa zakiyu loolu wala ibnu ashur wax yajibu li ruslil kiraami sidqu amaanatun tabliiguhum yaxiqu muxaalun ilkadibu walmanhiyu ka adami tabliigi yaa zaki waaye kuy dëggu nag yonentoo la raw sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa asdaqu nnaasi moo gën a dëggu ci nit ñi lahjatan ci waxtaan wa alyanuhum hmm. moo leen gën a nooy hmm. gën leen a baax hmm. arikatan ci jikko jikko moo ci gën a nooy moo ci gën a baax waaw am na ab kaw kaw bu jógee ca àll ba fekk yonent bi ngi ànd ak saxaabaam mu bettee ko ginnaaw rek bépp manto bi ba ñu gis Euh, baat baa ngi rougir hmm. mu ngi mu ngi mu ngi xonq hmm. xaw a deretal ni hmm. yenentu wëlbatiku gestu mu ne ko jox ma ci alal ji nga xam ne yàlla la ko jox moomoo yenentu sallallahu alayhi wa sallam daal di muuñ ko wax dara sax dafa muuñ bi mu waxee loolu yonantu ne jox leen ko li mu bëgg loolu tuut ne kilifa gu ne mën na ko mhm. rawatina nga nekk ak ñi la gën a fonk mhm. da ngay foog ne dañ lay doy dañ laa doyee dam boo moytu sa nga ne gars yi lu ngeen di xaar mhm. waaw am na ko mos a dugg ci jàkk ji commencé tuur ndox saxaaba yi jóg bëgg koo dóor mu ne bàyyi leen mu yeggalee mu ne leen indi ndox indi ndox sotti leen ci daal di jël waa ji ak moom mm-hmm. ak moom xamal ko ne ko mm-hmm. fii jàkk la mm-hmm. jaamu yàlla lañ fiy def bu ñu tuur ndox moo ko waaji moo ko waaji ba waaji dugg ci lislaam moo tax mu ne wa aliyanahum moo leen gën a nooy sallallahu alayhi wa sallam arikatan ci jikko wa akramuhum moo gën a tedd ci nit ñi ashratan ci àndaale koy àndal rek ci xaritoo mbaa ngay ànd ak moom hmm. ci bokk hmm. yonentoo ko gën a tedd àndaale hmm. sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi leen daan dimbale ci togg leen dimbale ci liggéeyu kër daf daan ñawal boppam ay yéreem di defaral boppam ay dàllam dégg nga nekk dafa nekkoon neena na ci mihnatu ahli Mm-hmm. yonent dafa nekkoon fi mihnati ahli mm-hmm. ah dafa euh, mihnati ahli dafa nekkoon ci euh, liggéeyu waa këram mm-hmm. waaw dafa nekkoon ci liggéeyu waa këram loolu lu lu lu mat a bàyyi xel la am na ñoo xam ne rus nañoo jàppale seen jabar ci liggéey yonentu nag daf daan jàppale soxnaam yi ci liggéey daf daan foog ñoom léeg-léeg muy dàqanteeg ñoom sax sallallahu alayhi wa sallam Aïchatu nee na daf daan foo ñoom waaye bu julli jotee rek day mel ni mosul ñoo xam mosul koo xam mm-hmm. maanaam ku nekk fa jox sa xaq mm-hmm. li ñuy wax ne moom la Isa waxoon ne jox leen yàlla xaqam jox César xaqam mm-hmm. boobu mooy buuru moom waaw yonentu it ku nekk fa lay jox sa xaq ba mat sëkk wa akramahum wa akramahum noonu noonu la meloon ak i saxaaba noonu la meloon xataa kay maanaam mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. noonu tooña tooña tooñ ba ñu ne ko ñaanal yàlla rëbbu leen mm-hmm. mu ne man yàlla yónniwut lu may rëbbaakoon yàlla damaa yónni ma yërmande danañ ko lor sax mu layal leen ne yàlla baalal sama nit bañ xamul rek mu ne man raahu képp ku ko mos a gis moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam mbetteel bu ragal ko maanaam soo ko soo ko njëkkee gis moom yonantu sallallahu alayhi wa sallam hmm. yàlla dafa def ci moom xëybatu goo xam ne hmm. fokk nga dégg nga euh, fokk nga lox hmm. fokk nga yëg ne ah, man ndeke ni ma foogoon ne noonu laa mel meluma ni fokk nga yëg ne góor dëgg nga gis personnalité moo toll noo xam ne soo hmm. koy njëkk a gis rek hmm. fokk nga yëg ak ragal dégg nga ci sa xol fokk nga yëg ak wegeel ñeel ko hmm. sallallahu alayhi wa man raahu ku ko gis ba diixatan ci mbetteel bu wekk ko xaaba ndax dafa amoon xëybatu nekk ci moom fokk nga wekk ko waaye waman xaalatahu ku jaxasoog moom nag maarifatan ci xam hmm. ahabahu sopp ko hmm. waaye soo jaxasoog moom hmm. rekk nga sopp waaw xam ne moo gën ci li yàlla bind sallallahu alayhi wa sallam looloy kilifa waaw boo ko gisee doo ko yàpp waaye su ngeen jëflante rek nga sopp ko waaw am na koo xam ne boo ko gisee rek sopp ko waaye su ngeen jëflante nga xeeb ko yonentu nag boo ko gisee wekk ko sopp ko mm-hmm. noo gën a jaxasoog moom mm-hmm. gën koo sopp mm-hmm. noo ko gën a xamee ndax nit noo gën a jaxasoog moom gën koo xam te koy xam mooy tax nga xam ne ku baax la ba nga sopp ko wala ku mel neneen la ba génn ci moom yonentu nag mooy koo xam ne soo ko déggee xam ne ku baax nga dégg soo ko gisee xam ne ku baax nga gis soo jaxasoo ko moom gën a xam loolu gën ko sopp bari ci kilifa yoo xam ne mën nga leen naa dégg naw leen hmm. waaye su ngeen jaxasoo rek nga xeeb leen hmm. yonentu mooy koo xam ne noo ko gën a xamee hmm. gën koo naw bëri na ciy kilifa ñoo xam ne soo leen déggee naw leen waaye suñ la waxee niñ meloon ak seeni i soxna mbaa doom wala seen biir kër rekk nga xeeb leen yonentu nag noo gën a xamee private life am gën koo sopp gën koo naw sallallahu alayhi wa moo tax mu ne yaqulu dana wax naacituhu waa ji mellalam kuy mellal yonent bi danga wax ne lam ara mosumaa gis qablahu njëkk yonentu sallallahu alayhi wa sallam baadahu du caageen gannaawam mithlahu ku mel ni moom sallallahu alayhi wa mm-hmm. ku gis yonent bi sallallahu alayhi loo wax boo noppee rek li ngay mujjee wax waaye maanaam ku mel ni moom daa xamut hmm. waaw ku mel ni moom mos ta xam hmm. ku mel ni moom du mos a xam hmm. ba ma gisagut yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mosumaa gis ku mel ni moom ba ma gisee yonentu bi ba léegi it mosumaa gis ku mel ni moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xadis ju am solo la waaw mu xaqiq bi nag dana ko lompañal mm-hmm. donte baat yi ci nekk yëpp mm-hmm. wala yi ci ëpp mm-hmm. ñu ciy xadis yoo xam ne xadis yu euh, wér lañ dana wax ne imaam Tirmidi ci manaqib dana wax ne xadis xasan la waaye xadis garib la xadis ju rafet la ju tumuranke ne ndax laysa isnaadu muttasil isnaadam am jokkoowut wax na ne Omar ibn Abdullah al Madani hmm. bi nga xam ne moom lañ wax ne mooy mbaay yàlla yi xubratu hmm. bi nga xam ne mooy sëru Seydina Bilal hmm. ñu ne Omar ibn Abdullah al Madani borom taqrib nee na ku daif la waaye imaam Ahmad nee na laysa bi basun ak ak maanaam mën nañoo téye ci moom waaye li ëpp ci xadisam ay marasil la yaxya ibnu mahin nee na ku lompoñ la naka mhm. noonu nasaa'i mhm. waaye ibnu saad nee na la mhm. ku wóor la lu ci mën a xew daal xadisam ji lépp lu ci nekk daa ko fekk ci yeneen xadis yu ñuy sukkandiku yu wér baat yi nga xam ne nag ñoo ci jafe dafa mel ni boroom téere ci boppam firil nañu ko qaala abu isa kan mooy Abu Isa hmm. mooy hmm. kon kii nettali hmm. ki solo téere bi ci moom moo wax baat bi moo wax qaala Abu Isa bi imaam Tirmidi nee na samitu dégg naa Aba Jaafar Muhammad ibn al-Husayn nga xam ne bokk na ci ñi mu solo xadis bi ci njëlbeen xadis nee la xaddatana ahmadu bnu abdata addabiyu albasriyu wa aliyu bnu xujurin wa abu jaafar abu jaafar mii nag nee na dégg naa yaquulu mu ne samitu dégg naa al asmaiya al asmai kenn la ci kàngaami lakki arab xam ne lu mu wax ci lugal arabiya néew na ko ko mën a teggi yaquulu muy wax ne muy wax Mm. fi tafsiri sifati nabii mm. ci euh, firi melow yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mm. mu ne al mumarriti baatu mumarrit bi ñu wax ne yonent bi lam yakun rasulullahi mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam bi tawilil mumarriti mu ne al mumarritu al zaahibu mooy aji dem tuulan ci guddaay mm-hmm. mooy ku njool ba mu hëpp sallallahu alayhi wa sallam moom njoolutoon ba mu hëpp wa qaala mu ne hmm. sami'tu dégg naa hmm. arabiyan ab kaw-kaw hmm. ndax kaw-kaw yi arab ci ñoom lañ daan jànge arab ndax ñoom seen arab dafa dafa pur boo demee ci àll bi dëkk bu mënta dox boo demee ci seen kaw ga fa ngay déggee làkk ba nga xam ne moo gën a cosaanu xam nga ne wolofi Ndakaaru bokkut ak wolofi Saalum Mhm. mu ne dégg naa ab kaw kaw yaqulu muy wax fii kalaami ci waxam mhm. ne tamarrata mhm. tàlli na walla tàllal na fi nushaabatihi ci ak euh, dégg nga fettam maanaam mu ne mu ne ay maddaha tàllal na ko maddan tàlli shadidan gu gu tar hmm? kon tamarrutu kon mooy tàlleeku gu tar mooy guddaay mooy njoolaay bu hëpp rek mu ne wal mutaraddidu nag hmm. addaaxilu mooy aji dugg baaduhu baaduhu lennam fii baadin ci lenn hmm. xisaran ngir gàtt hmm. koo xam ne dangay xool cëram yi mu mel ni euh, loos bi dafa dugg ci biir euh, dégg nga dënn bi dégg nga mel ni euh, loxo yi dañoo gàtt ba duggante tànk yi mel ni dañoo gàtt ba dañoo dugg ci biir ndigg li wala ndigg li dugg ci ñoom mu ne loolooy loolooy mutaraddidu mu ne wa amma alqatatu hmm. hmm? hmm. bu fekkee nag qatatu baatu qatatu mu ne fa shadidul juudati mooy aji tat ji leemu aji tat ji lunku aji tat ji kotomu war rajilu baatu rajilu nag mu ne alladi mooy koo xam ne fii shaari yi nekk na ci karawam xujunatun hmm. hmm. sama téere bii man xujunatun xaala def hmm. waaye xuj ah, xaala war a doon xaalong xujun xujunatun la ah, mu mel daf lay bëgg a waxal sax luy ak mu ne ay tahannin qalilun xujunatun ak lemu mu ne ay lim ci namm mooy tahannin lemu qalilun bu néew Mm-hmm. rajulu mooy ku digg doomu mm-hmm. mooy karaw goo xam ne mm-hmm. le am na ak lemu bu néew waaye lemuwut ba mu hëpp tàlliwutit ba mu hëpp mu ne wa amal mutahamu daat baatu mutaham buñ ne diw mutahamun fal baadinu mooy aji am yaram alkahiru laxmi kay aji bëri yàpp mooy ci lu jamono ji pata mu ne wal mukalsamu hmm. mukalsam nag hmm. al mudawwarul wajhi hmm. mooy kuñ wëndeel kanamam mooy koo xam ne kanamam dafa rond wal mushrabu alladi mooy koo xam ne fii bayaadihi nekk na ci weexaayu yaramam xubratun xonqaay mooy mushrab wal adaju hmm. buñ ne diw adaju hmm. mooy ashadidu sawaadi al ayni hmm. mooy xam ne ku tat dégg nga ñuulaayu bët la wal ahdabu al tawilu al ishfaari mooy aji gudd ji xef ne diw ahdabu mooy xefam dafa guddu du noonu walkatidu hmm. mujtamaul katafayni hmm. mooy daje waayu ñaari mbagg hmm. wa huwa loolu alka mu ne alkatidu boo ko bëggee xam alkaahilu mooy mooy joggare wal masrubatu huwa moom achaaru mooy karaw hmm. ad daqiqu gay aji sew hmm. alladi gi nga xam ne kaannahu daanaka moom hmm. adyibun bant la min asadri tukkee ci dënn bi ila surrati jëm ci lutt bi mooy jumbaab mooy loo xam ne dafa mel ni asiyat rek soo xam ne dafa wàcci walla nga tax su wàcc dégg nga euh, jógee ci kaw dënn bi jóge ci dënn bi wàcc ko ci jumbaab bi wa shatnu baatu chahnu hmm. alxaliidul asaabici hmm. mooy aji tag ji baaraam hmm. minal kaffayni ci ténq wal qadamayni ak ndëgu waaw buñ ne diw dafa chahnul euh, kaffayni wal qadamayni mooy baaraam yu tag la xamee baaraam yi euh, loxo ak baaraam yi tànk waaw maanaam dijji nañu mat nañ nañu war a mel waaw wa taqallu nag hmm. an yamshi mooy ba dox ak hmm. bi quwwatin ci kàttan hmm. waaw mu ne buñ ne diw yamshi mooy dafay dox ak kattan duut koo xam ne dangay ngay gis muy diisal boppam mbaa muy diis diislu mbaa muy doxee doxinu am yambar yonent bi sallallahu alayhi melutoon noonu wa sababu nag mooy alxuduru sippeeku yuqaalu danañ wax ne in xadar naa sippeeku nañ fii sububin hmm. danañ wax tamit in xadar naa sippeeku nañ fii sababin hmm. wa qawluhu waxam jalilul mushaas yi hmm. aji màgg ji mushaas la mu ne mushaas mooy ruusul manaakib bi boppi mbagg du loolu wala ishratu nag mu ne as soxbatu mooy àndaale wala ashiru hmm. as-saaxibu mooy àndandoor hmm. hmm. ak ak al ushratu mooy as-soxbatu kànd waxal ne mooy kànd ah, ànd àndaale giñ àndaale mooy as-soxbatu ki àndaale mooy saaxibu mooy ashiru al ushratu mooy kànd gi al ashiru mooy aji ànd ci yàlla mu ne eh, fa ashiruhunna bil maaruf wal badihatu hmm. baatu badihatu mooy almufaajaatu hmm. dégg nga hmm. bett yuqaalu dañuy wax ne badahtuhu bi amrin ay fajatuhu bettee naa ko bettee naa ko mbir bettee naa ko mbir hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim